salaamaaleykum euh, mbokki kaw Kaolack euh, tey bis bi li ko waral neex na trop ndax tey lañuy màggal journée nationale l'arbre li ko waral nag moo waral lii kilifa yu mag yi teew ci ndax ku ne xam ne ne réew mi du Macky Sall la koy wàcc dañu ko defaral fii tubaa kaw Kaolack du ministre du député ñun ñi fi dëkk màggee fi juddoo fi yaroo fi ñoo ko war a mën a defaral suñu bopp duñ ci xaar maire duñ ci xaar benn responsable comme lu koy xale yi waxee rek monsieur le maire loolu dama koy nangu ndax parce que gox bi dana war a changer fii cinq 5 ans. parce que maa ngi ci bëgg a ànd ak ku ñu naan directeur général Sénélec muy Pape Demba bi tey mi nga xam ne biñ ko namee directeur général yàggul mu ne ma yéene ji nga amoon pour Kaolack changé ak yéene ji nga amoon pour Touba Ndorong changé mën naa la cee jàppale. jàppale googu nag moo waral lu ma am ak lu ma amut lu ma man ak lu ma mënut. moo koy def pour gox bi mën a am beneen xar kanam ndax il est temps ndax Kaolack toll na tollaay boo xamante ni réanimation la toll pour ñoo xaar kenn bu ñu koy defaral tey loolu tax ma taxaw pour jëmbat garab yi taxaw tàllamp yi taxaw def jardin public taxaw pour def fii li nga xamante mooy terrain basket ak terrain football terrain handball lépp am ci gox bi nga xamante ni voie bi nga xamante ni mooy voie Sëñ Fallou amul ci Sénégal da naka benn benn ngay gis ci dëkk yi voix bu am nii bu mel nii ba pare mu mel nii melokaan bi mu mel neexuma parce que ay mbalit nga fi fekk ay ndox lenn loo xamante ni rafet na ci xar ci bët amul ci gox bi looloo tax nag ñu taxaw exécuter pour xool li nga xam ne moo yekk ci gox bi ñu defar ko moo waral ñu commencé fii bu déwénee ñu commencé waat ci leneen ndax directeur war nañu confiance war nañ ko confiance mu jox ma loxo ma jox ko loxo ñu dem bu ma gisul la ma xam damay toog ndax am na ay fullay ku ma jàpp ma jàppal la ku ma bàyyi ma bàyyi la looloo tax nag responsable yi teew fii suñ xaadim booba ngi nii taxaw suñ Ablaye Joxumpaa ngi nii taxaw sëriñ Saliou Diop ak ñi nga xamante ni ay responsable lañ ci gox bi ndax li Covid 19 bi mel moo tax mu mënoo mobiliser yenn mobilisation yi ndax parce que président nanguwul loolu moom DG nanguwul loolu loolu tax ma doxalee ko nii moo waral tey taxawaay bi. benn responsable bu am bu am xel benn responsable bu. bu correct benn responsable bu yaru rek moo am Kaolack muy moom loo tax ma choisir ko parce que moo gën a sérieux ci responsable Kaolack gi bi ko président de la république nommé nag loolu vraiment dama koy dama ciy jàppale président pour jóge réew mi nga xamante ni mooy Idrissa Seck ga nekkoon ma ñëw jàppale Pape Demba Bitèye ndax moo ma convaincre lu tax ma war a mën a jàpp ma wax ko war a jàppale looloo waral ma bàyyi Idrissa Seck jàppale président de la république ndax Pape Demba Bitèye moo tax ndax nite gi Pape Demba Bitèye nite ak correct gi mu correct moo tax ma jàppale ko ndax maa ngi dégg ay nit naan ñoomam Ndorong ñoomam mbir na bàyyi mais Ndorong ñi ko moom ñi ngi kenn moomul Ndorong kenn moomu ko waaw ku wax loolu la da ngay gént di wax wala ñu jey la ngay wax waaye Ndorong ñi ko moom ñi ngi nii taxaw kuy bëgg dara ñii ngay waxal ku fi soxla dara ñii ngay waxal Ndorong nag wax dëgg yàlla yàlla dafa def euh, ñu doon ay nit yu correct yoo xamante ni ñu am respect lañ ndax quartier religieux la ci ndiggal la ñuy dox moo waral doo dégg marche doo dégg manifestation yenn yu ñaaw yi ndax dañoo yar looloo waral lu ñu mettre dañ koy dañ koy dëxëñ suñu xol mais bu ñu amee def